perkaar rekk a ñëw la nga wan gannaaw wan nga ko gannaaw léegi nag wax ma li nga doon def foo ko teg nga tiit moo tax nit lu mu mën a am ci àdduna na jiital diine rek loo mën a ñàkk ci àdduna amal diine rek diine daal mooy affaire waaw diinu fii salaasa xus aqwaawuraak diine moom fu mu foo mën a nekk fexeel ba am diine soo bàyyi diine bàyyi nga yàlla soo bàyyi yàlla soo dee looy wax doo am loo wax doo am loo wax moo tax ñu ne la kon islaam muy sukk ci kanam yàlla imaan mooy nga gëm ko ihsaan mooy nga rafetal ko tey bëri na ku sukk ci kanam nit ci politiciens yi wan ko ne yow laa àndal billaahi àndul ak moom mais loola ngay gëm xaalatil aaraabu amana qul lam tuuminu walakin walakin mu am solo del wax rek jébbalu nañ sukk nañu waaye bul waxati gëm nañu bi leen ko yenent bi waxee ñu seetaat seen bopp xam ne kii ki ànd ak moom xam na lépp ñu deferuwaat ñëw ne ko léegi amana yàlla yér ne ko dëgg la du muhammad de muhammad mënta yegg ci xolu nit yàlla moo fay yegg bi fa yàlla sunu borom yeggee ne ko dëgg la kii moo trompé ñu bari politiciens yi moo leen trompe léeg-léeg nga am loo xam ne war a jëf loo xam ne war a teg loo xam ne nite la ko tegloo nga dem ba ci biir nit ka rocceeku moo tax dee leen yem fi ngeen war a yem bàyyi yàlla côté yëpp yem leen fi ngeen war a yem bàyyi yàlla ci côté yépp su ngeen yemul fi ngeen war a yem coono la leen di jural moo tax jullit dafa war a julli jullit na julli soo jullee ba pare nga xam ne jullit nga jullit nag laa wax waaye koo xam ne yaa ngi ci jàkk ji am na koo xam ne buñ la ko tàggee nga bég doo jullit yaa ngi ci jàkk am na koo xam ne du ngeen laale doo jullit yaa ngi ci jàkk ji am na koo xam ne su jiitee nga dem sa yoon doy la dangay nekk vrai jullit nekk amana nekk aslam naa nekk ihsaana ñetti yi boo ko boolee da doon jullit bu ko defee nga am diine ju rafet diine ju sell muy ñetti baat yi muy diine ñetti soo amee is eh, te amoo eh, eh, islaam dara soo amee imaan amoo lihsaan dara dangay boole ñett yi mu doon ak diinu si salaasa moo lay dimbale lu dul loolu du la dimbale moo tax nañu sàmm suñu diini suñu asaka suñu aj màkk sunu julli juróom sunu sunu sunu sunu ba mu mat ñu dooga tàllal nag loxo yi man jullit laa yàlla laa gëm ñii ay jaamam duma leen bañ eh, nattu yi leen dal yàlla leen ko teg di eh, nangam nangam voilà waaye bu fekkee ne dangaa bañ jullit bëgg a julli sa julli lu muy jëriñ bañ nga benn jullit bëgg ne da julli ban njëriñ la am gis nga sooy génne asaka aj màkk woor weeru koor yooyu yëpp nga di ko def tuddoo julli c'est zéro mooy mooy bi bi am doole mooy bi yàlla bëgg moo tax mu wutal ko jàkka wax ne wa anna al masajida lillaahi fala tad'u ma'a llaahi ahadan màkka amul kaaba amu ko amu ko julli rek lañ ko wax julli rek lañ ko wax jullikaay yépp may borom bu leen julli fenn fudul ci jàkka yi su dee naafile la julli sa néeg su dee farata nag julli ko ci jàkka ja c'est ça waaye waaye waaye rek maara dey daal euh, sa mbir jekk na jekk goo de jekk jekk goo de dese nga lu bari yaa ngi aji màkk yaa ngi génne asaka yaa ngi tuub yépp yaa ngi ngi def lépp mais doo sëpp jëbi ci suuf yàlla gedd na ñeent ndax bii nga matalul gedd na ñeenti yee ndax bii nga matalul soo bëggee ñeenti yee dugg matalal bii amul caaxaan julli rek allahu akbar rek asalaamaaleykum nay dëgg ci sa xol illaa man atallaa bi qalbin salimin yàlla nee ki amul xol bu rafet lu mooy jëriñ ki ñëw ci man te indi xol bu rafet kooku am njëriñ illaa man atallah bi qalbin salimin waaye ñëw ak yàlla xol bu ñuul kukk xol bu mel ni këriñ xol boo xam ne yow kenn xamul ba nit nga nit ñi dañ lay xool sax duñ xam nit nga am déet mais loolu loolu loolu musiba la musiba la dañ leen jaamu yàlla lii lépp dañ ko fi bàyyi lépp lañ fi bàyyi lépp lépp doom yeeg juddu yeeg jur yeeg lépp da ko fi bàyyi yére yeeg xaalis beeg lépp da ko fi bàyyi lenn rek nga yóbbu sa jëf moom nga yóbbu sa jëf nga fay fekk nga fay fekk kon ginnaaw loolu nga fay fekk te nga kaw góor góorlu sa jëf naar